la koy defee Ablaye Wade bari na njaboot ci Sénégal ak ci Afrique ak ci àddina bi wante benn doom bu góor bu bàyyi ko ci moom rek la am ci lu ñu xam muy Karim Wade ne ko du mën a juboo ak moom tànk que réglé problème mu exilu Karim parce que ku nekk xam na ne mag bu tolloo fenn fi njabootam lay xalaat nan la leen di bàyyee ginnaaw donc bu fekkente ne xelam dalul ci loolu jàmm du mën a am léegi nag ma ne ko am na proposition bu ma ko bëgg a defal mooy ci biir njaboot gi Ablaye Wade njaboote ci wàllu politique jur na ci président de la république mooy moom ma Sall jur na ci ay ancien premier ministre ci laa bokk jur na ci ay médiateurs de la république Serigne Diop suñu mag ñun ñëpp ci la bokk Alioune Badara Cissé actuel médiateur ci la bokk ma ne ko kon léegi nañu seet ci njaboot googu ñu tànn d'abord ñi ci nekk ay médiateur muy Serigne Diop ancien médiateur di professeur de droit constitutionnel exceptionnel bu àddina bi yëpp wekk ci xamxamu droit ak yoon Alioune Badara Cissé mi nekk médiateur ci ab lay Wade la bokk ñoom ñaar nañu ànd dem seeti ko moom président de la république mi nga xam ni moo jiite état bi waxtaan ak moom ne ko waaw léegi li dox sa diggante ak Ablaye Wade ak Karim Wade ñaata la justice décidé na ba pare nee na ñu ngi topp Karim Wade nangami milliard lan nga ci mën a bàyyi yow ci sa sañ-sañ lan la la sa sañ-sañ may nga bàyyi ko ci bor boobu bu ko waxee ba pare ba ñu ne lii moom mënu mënuñu koo bàyyi lii justice daf ko laaj ñëpp a ko war a fay bu boobaa deuxième proposition bi may def mooy ñi nga xam ni ñëpp ci Sénégal mus nañoo jot teraanga ci Ablaye Wade nañu làmb seen poos cotiser ñu fay ko nañu làmb seen poos tàmbalee ci man tàmbalee ci moom Macky Sall moo taxaw fii wax ne Ablaye Wade may na ko juróom-ñetti milliards moo ko wax Ablaye Wade weddi na ko mais moom Macky wax na lool xaw ma mat na juróom-ñetti milliards xaw ma mais yàgg naa lekk teraangay Ablaye Wade na làmb ci poosam dugal ci bor bi ma làmb ñeneen ñëpp làmb sénégalais yëpp làmb taalibe murit yi làmb taalibe tijaan yi làmb catholique yi làmb ku jot nga teraangay Ablaye Wade bu ñu làmbee fay bor bi loola féet